boo xam ni bii Feeling Dakar ñoo ko def yaakaar naa ne dañu cay sàkkul ndimbal mbokki Aziz Dabala waaye la ñaaw ca jëf ja mooy ñu jël boppu Aziz Dabala génne ko jël ab paaka ne ko rëbëj ca bopp ba deret jay feeñ image bu ñaaw fu ñaawaay di àgg image boobu àgg na fa nga xam ni ndeyam mën na tombe ci image bi mbokkam mu ko jege mën na ci tombe soppeem yi nga xam ni journaliste ñii ñuy wax ay journaliste ñu nekk ci réseaux sociaux yi soxla nunu lool lool lool delluwaat ci école ñu tàmbali leen ca njaal benn ga ba àgg ca fu jàng war xamuñu lu ñu war a wax xamuñu lu ñu war a génnee photo xamuñu lu ñu war a waxtaane xamuñu fu fuñ koy waxtaane est-ce que yéen ay nit ngeen est-ce que am ngeen ay yëgukaay ñu wàcc beneen daraja est-ce que ay jullit ngeen parce que jullit dafa war li nga xam ni moom la bëggul ku ko ko def mu bañ ko def keneen kon yéen seenug jullite sax dañ koy seet li ma waxoon démb it bërki démb dama ciy dellu siwaat mooy réew mi bu nekkoon ci loxo enquête bii ngi xam ni moo nekk ci plateau télévision yeeg réseau sociaux yi ñu naan lii la diw wax lee la diw wax lii la diw wax la la diw wax nga xam ni loolu mënuñu koo jëlee lu dul ci polis bi nga xam ni moo yor dossier bi di ko enquête loolu wërta nekk ci guddi yi ñu toll enquête bi soog a tàmbali pareegul am lu ci senn di génn di dem ci fu mu warut dem ba ñu ci wesaare naka noonu ñi ciy wax loolu la ñuy wax euh, dossier pendant devant la justice ñu ne yoon moo yor dossier bi mi ngi ko mi ngi ciy tàmbaloo gëstu ndax procureur moo santaane enquête ba nga ñu am na ñoo xam ne yóbbu nañ leen mandat de dépôt ñu waroon kon dossier boobu kenn waru cee ubbi sa gémmiñ di wax nga xam ne ay baadoolo rek la ñu amal affaire ci réew mi te lii ñuy def di ŋawt ŋawtee ñi nga xam ne ñoo ne ci biir mbir mi bu doon seen ndey wala seen baay wala seen mbokkum jegeñaale danañ ko jéem a noppi yooyu kon du ngeen ay nit suñu ñaareelu tomb mi ngi jëm ci imam Ndaw nee na def na démb bërki démb wala conférence de presse wax na ce moom nee na dañ koo tooñ dañoo tooñ Bah Diakhaté loolu moom ku ne sañ nga ko wax dégg naa sax mu mel na bind na luy niroo ko ay bayt wax ko Bah Diakhaté waaw loolu sa version la sa version la sa xalaat la yow moom ba ba àddina di tukki doo nangu ne dañ laa da ngaa tooñ waaye réew mii nga xam ni moom lañuy yeewoo yaakaar naa ne am na loo jege lool ñoo xam ne ba ñu déggee sa kàddu ya ñoom dañoo taf seen loxo seen gémmiñ li may yitteel ci wax ji nag mooy dafa am foofu dafa indi aayab alquran yaa ayuha nabiyu jaahidil kuffaara wal munaafiqin waxluz alayhim yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la yàlla waxaloon ne ko xeexal ak yéeféer yi ak munaafiqiin yi mooy naafiq yi mu ne wax lus alayhim boobu ci li mu wax mooy saagaleen loolu nag du dëgg moom du dëgg yàlla du wax yonent bi saa saagaal ndax saaga du solution bi nga xam ne moom lañu war a jëkk a làmb ci xeex ku mën a jëflante doo saaga xale ngay dóor xamul nu mu la def wala nga xeex ak koo xam yaa ko mën doole ëpp ko doole saaga mu saaga waaye saaga moom bokkul ci stratégie yi gën a yiw moom yàlla nag maye na ko ci ku ñu tooñ te yow kenn tooñu la yaa tooñ sa bopp yàlla li mu wax ci waxluz alayhim mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu leen may dara na dëgër na na metti loolu la ci jublu loolu la ci jublu rude rudesse soit avec e, bien envers eux te yow su fekkee ne alkufaar rek nga amal amal problème say problème du jeex ñooñu ngay wax kufaar li ñu mën ci yow yow mënoo ko ci ñoom boo xëyee suba ba ngoon seeni yëf ngay jëfandikoo kon ku yooyu ñoom waroon nga ba nga demee ca seen réew jot faa dund ab diir nga nga def ak ñoom nii ngay def ngay xeex ak ñoom loolu nga waroon a def ba nga fa demee da nga ne nuut regle ne nojj te ñaata réew nit ñoo nekk ci réew mi ñoo xam ne ñii mën nañ leen a boole ci kuffaar yooyu te ñemewoo leen a tudd ñoom ay kuffaar ouvert yoo xam ne xam nañu ay kuffaar lañ ñaata nit ñoo fi nekk ñoo xam ne ñii diine ji gedd na leen donte ay jullit lañu ndax seeni wax ak seeni jëf te yaa ngi laami soog ñoom yow a ñaata nit a fi nekk yu diine ji gedd ndax seeni pas-pas yu ñaaw te yaa ngi maslanteeg ñoom kon yow danga yabaate rek su fekkee ne nag li ngay wax dëgg la ci yow loolu xale yi di wax ci làmb ji dangay dëggal sa bopp waxaatal la nga waxoon rekk yàggatul ñi lay jañse di la puus nan la guerrier nga yaay wax dëgg dañuy xeex diine ñooñu bi ñu la dugalee ci mball gi defe naa ne ku fa ñëw xëy na ab mbuusum banaana ak orange ak pomme la lay indil ci ñëw sax laa wax ñi ñëw ñi ci des ñépp dañoo toog seetaan la nga toog jànkoonteeg la ngay jànkoonteel ba mu jeex nga génn buñ la puusaatee ngay waxaat dàkk la dàkk dékk la ay micro wala ñu lay tàccu wala ñu lay yónnee ay message naan la xeex bi yow suñu xeexa fii kaay yi duñ la xeexal de <laughs> gaa yi duñ la xeexal de sa waa jàkka laa yërëm man sa waa jàkka laa yërëm ndax ku mel ne yow nan la mën a jiitee ay nit ñuy tayle seenug seenug julli man boobu problème laa am man bu ko defee nag soo bëggee am jàmm ci réew mi dangay def ne yeneen aimma yi fi ne di waxal diine di waxal askan wi di waxal ngor loolu mooy tax nga am jàmm de ndax nag li wërees jàngal askan wi ci seen wàllu diine ak ci seen wàllu réew ñu xam ni am xubbul watan lu war la jàngal leen ko ci ay jikko ci réew mi fi mu toll ci jikko yu yàqu loolu doy na la sëkk ak barke wallis ngay saaga ay nit di joxar baara joxar bi baaraam ay nit li ngay wax daal su fekkee ne dëgg la la nga waxoon ba dugg moom ñëpp xam nañ ko ka nga ko waxoon it ñëpp xam nañ ko su dee dangaa nekk ci dëgg daal waxaat ko rek mën naa am dana gën a leer asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.